lii rek moo waral ñun ñu doxalee nii man mi nga xam ne nag man la yàlla jiit def ma jiite réew mi tey jii lépp luy sama kàttan ci nguur gi danaa ko def ngir jàmm jooju ñu ñaan dellu si si réew mi dal dellu si si réew mi ngir Sénégal lañu ko xamee woon démb ak barke démb muy réew moo xam ne réewu jàmm la réewu dal la réewu waxtaan la réewu démocratie la waaye réew la moo xam ne itam a nit ñi même bu ñu bokkulay xalaat daañu weccoo ay xalaat léeg-léeg sax ñu wax ba dënn yi tàng waaye nag li nga xam ne moom lañu bokk muy réew mi ak démocratie bi ak institution yi ah loolu waruñ ko yàq te kenn warul dugg si lu koy yàq maa ngi santaat di gërëmaat kilifa yi suñu réew nag yàlla moo ñu baaxee loolu ba tax na fu mbir yi jaxasoo ba xel yépp tiit kilifa yooyu daañu jóg waxtaan ak kenn ku ne waxtaan ak ñu yor nguur gi waxtaan ak ñu yor opposition waxtaan ak ñi nga xam ne xëy na ñoo yëkkati mbir mi ngir ñu xool ci yan anam la ñuy lijjante ba jàmm mën a dox leneen li tam xam naa ni am na ci réew mi ay jafe-jafe ci wàllu koom ndax àdduna bi yépp moo am jafe-jafe yi rawatina réew yii di réew Afrique bi ci Sénégal gii jafe-jafe yooyu nag li ko yokk depuis a ngi nii mooy mbas mi mbas mi indi na ay gàllankoor ci njaboot gi ci économie bi ci liggéey ba kër këru liggéeyukaay yi ba ci ñu yor diine bi ata ngi ni kenn mënul dox li nga xam ne noonu la noonu lañ doon doxalee diine yi ci biir réew mi loolu it laal na ay këru liggéeyukaay yu bare bare ba tax ñenn ñu ñàkk nañu seen liggéey ci gàttal daal jafe-jafe yi gën naa tar depuis bi nga xamante ne lii mooy mbas mi dugg na ci réew mi moo tax may wax askan wi ni jafe-jafe yooyu nga xam ne yokk na ba ñu koy yëg ci biir kër yi di ko yëg ci quartier yi di ko yëg ci banlieue bi yëg naa ko dégg naa it li nga xam ne mooy façon bi nga xam ne moom lañu ko wone naam bi mu tàmbalee xam ngeen ne ci fàttali yëkkati woon naa benn fond bu ñu tuddee force Covid 19 fonds boobu junni milliards atum daaw def nañ ko si ngir mu ñëw indi ndimbal si askan wi yéen a ngi fàttaliku ceeb yi ñu fi joxe woon nag lépp lu ñu indi woon ngir jàppale njaboot gi indi itam ay ndimbal ci entreprise yi pour ñu bañ a dindi borom liggéey yi indi ay ndimbal ba ci suñu doom yi nekk bitim réew ba ci artistes yi. waaye xam naa ni loolu ñu defoon yépp ba fii doyul ndax jafe-jafe yaa ngi fi ba tey di gën a tar ci wàllu financement ndaw ñi juróom-benn fukki milliards DER joxe na ko waxtu wi may waxe ak yéen financé lu ëpp téeméeri junni ak fukk juróom ci ay GIE ci ñeent milliards ñu ngi koy def at bu ne ci wàllu formation ndaw ñi utal leen métier moo xam ne apprenti lañu wala ay métiers yoo xam ne danañ leen ci former suñu pare ñu ubbil leen ay bu liggéey financé leen waaye loolu yëpp gis naa ne doyul moo tax nag maa ngi wax ak yéen ndaw réew mi di leen xamal ni dégg naa bu baax seen yuuxu dégg naa bu baax seen mer ndax xam naa ni chômage bi metti na xam naa ni it ah seen xalaat yépp mooy noo leen di def ba tekki noo leen di def ba jàppale seen njaboot jàppale seen réew noo leen di def ba am xëy ndax ndaw boo gis bëgg na tekki jàppale boppam jàppale njabootam waaye jàppale réewam loolu nag moo waral ma bëgg ginnaaw li fi weesu yépp xamal leen ne dinaa def doxalin bu bees ci gouvernement bi ak budget bi niñ ko doon doxalee ndax tabax naam ay yoon ay autoroute yépp am na solo tabax yi fajukaay fajukaay bërëbu jàngale am na solo waaye war nañu toppatoowaat lu ëpp liñ doon def ndaw ñi loolu jàngat la boo xam ne ala kuliyaalin danañu indi doxalin yu bees ci loolu kon nag yéen ndaw Sénégal fekkee rek mbirum seen avenir la mbirum nu leen jàppale ba ngeen tekki da ngeen xam ne dinañu yokkaat si lu bare bare bare danaa def programme bu bees boo xam ne dina toll si ñetti téeméeri milliards ci ñetti at yi muy téeméeri milliards at mu ne luy ñëw fekk lépp luñ daan def ngir ñu mën leen kuñ si former rek ubbil la nga financer la sa liggéey noo koy doxalee loolu te itam ñu fexe ba circuit yi ak procédure yi du nekk yu jafe lool xam naa ni itam ah couvre bi indi na gàllankoor yu bari si yenn liggéey yi ñu mel nu boroom restaurant yi ñu yor hôtel yi ñu yor liggéeyu guddi yi ñu si bare bare bare mbir mi gàllankoor na leen waaye nag boo gisee ñu def couvre-feu ci wàllu mbas mi dañu ne woon nañu sàmm dundu doomu aadama yi naam koom bi am na solo waaye ku gis li faatu senegal Sénégal bu ñu doxalewuloon ni amaan na mu gën fi metti lool ndax gis ngeen réew yi ñu ëpp doole fuuf réew mi ëpp doole si àdduna bi te ëpp na juróom benn téeméeri junni ci ay doomu aadama yu fa génn àdduna loolu nag jàpp naa ne xejul si suñu réew moo waraloon mettit yi ak couvre-feu yi waaye couvre-feu yooyu nag dinañ ko wàññi bés ni tey lii nga xam ne moo amoon ci région Ndakaaru ak région bu Thiès nga xam ne ñoom li ëpp ci liggéey ak këru liggéeyukaay yi si ñaari région yooyu la naam bu fekkee sax ne li ëpp aussi si jàngoro bi foofu la ne couvre-feu bi léegi dinañ ko toxal